amaaleykum sama gars yi kon tey ñu ñëw ak yéen ci benn tutoriel ba nga xam ne dañ koy def ci ak Word mu doon tutoriel bu ama am am solo boo xam ne dañ leen ci jàngal nan lañ mën a defee suñu mu gën a gaawee benn sommaire ak Word ak maanaam nan lañ mën nan lañuy defee mise en page ak euh, numérotation xam naa ni tey cours bi dañuy gën a consacré wu ci euh, sommaire bi dañ leen wan ni maanaam lu yomba yomba yomba yomb la yenn saa yi dee mel ni lu jafe waaye lu yomb la boo xoolee comme texte bi ñu jël boo xoolee texte bi daanaka day mel ni ku ñëw rek waaw di bind normalement si Word ba bëggoon bi def bii mooy petit un bëggoon def bi mooy petit deux ñëw rek di bind di bind gis nga di bind boo xoolee texte bi gis nga fii lay jeexee ajusté wuñ ko amul dara même espacement yi boo xoolee gis nga espacement yi dara ajusté wu si voilà mu doon ku comme ku nga xam ni mënul dara si wóor dafa ñëw rek di bind bind bindam ok texte bi suñ ko bindee ba texte bi pare lu ñu bëgg mooy def ko mise en page ba pare am benn sommaire boo xam ne si automatique pour def ko lu yomba yomb la maanaam boo xoolee booy doogee ci si Word boo xoolee maanaam nii lay ubbeekoo bu béykoo ni Word dafa tàmm dafa am la nga xam ne da koy def c'est automatique mooy bépp bind boo bind moom du koy jël dugal ko si benn filtre filtre boobu noonu moom mooy fii nii moom la ñuy moom mooy normal bii nii ngay gis lépp la nga xam ni bind nga ko rek moom du koy dugal si normal te loolu nag moo tax mbir mi maanaam après du yomb lu tax parce que bu ma bëggee changer dara fii jarul may dem di wër benn par benn wala di sélectionner lépp comme ni nit ñi di def def ay contrôle A di dem di sélectionner fii pour exemple changer changer kii bi maanaam style bi changer taille bi yooyu yëpp jaru ko parce que loolu pour ma def ko damay ñëw directement fii ma def ko nu ma ko defee mooy lan mooy damay ñëw exemple fii ma def clic droit su ma defee clic droit ma cliquer ci modifier su ma cliquer ci modifier ma dugg ma xool ma ne exemple taille numéro mën laa ko bëgg def taille yi mën naa exemple ma ni douze laa ko bëgg def bon ma bàyyi ko douze couleur bi nu ma laa koy def ma bàyyi ko exemple noir ma dem si format ma xool paragraphe yi exemple bon mën naa def automatique pour nga xam ne lépp paragraphe yëpp day tolloo suuf ok ma bës ok léegi bon boo xoolee bind yi comme sànq ma wax boo xoolee gis nga bind yi fii nii nu mel ma bës ajusté ma ajusté ko ma bës ok xool lan texte bi automatiquement su ma neexee jaru sax may wàcc di vérifier lépp ajusté nañ ko nga xool espacement entre paragraphe yi yëpp respecté nañ ko te soxlawul may def ay contrôle A wala may def dara di wàcc di xool di yëndu ba xam est-ce que am na lu baax wala am na lu baaxul boo gisee donc c'est quelque chose bu nga xam ne dafa yomba yomba yomba def léegi nag lii mm, ma mm, boo seetloo daf ñuy dimbali ci leneen ci leneen lan mooy tey suñu bëggee de suñu un bi grand un exemple supposons ñu ne bii grand un lañ ko bëgg def bii grand deux après grand trois grand quatre après peut-être suñu petit yi ñu def ko ay petit a petit b petit c léegi comme xam nañu kii fu mu nekk déjà mooy normal kon dañuy jël petit grand un bi ñu dugal ko ci beneen beneen boobu ñu koy dugal nag moom mooy fii nii heading one bi léegi bu fekkee en français la titre un lay tudd ci français parce que man d'habitude yu may utiliser ça en anglais donc bu fekkee en français titre un lay tudd boo bisee ci titre un da ngay gis euh, changer na couleur bi léegi loo ngay def mooy da ngay def clic droit tout simplement nga dem modifier soo demee modifier boo ñëwee fii nga dem format nga dem si numbering bu fekkee en français la numéro la boo demee si numéro nga ñëw fii nga choisir entre mooy un deux trois yi nga bës ok automatiquement nga gis nga sa changé na ko fii nga dem nga xool exemple bon ñu choisir bi bàyyi ko 16 daal di koy def en gras couleur bi mën nañ ko bàyyi bleu mën nañ ko bàyyi fii aussi y a pas de ok boo xoolee directement def na grand 1 définition d'une chaussée léegi après bu la neexee nga dindi pour ñu Euh, xam ban mooy grand un grand deux après xool leen lu ñuy def dañuy cliquer bii tout simplement nga dem bësaat fii automatiquement gis nga y a rien à ma wàccaat encore gis nga bu ma wàccee nag ma gis am nañ fii benn petit lu may def aussi c'est très facile damay cliquer ci kanamu petit bi léegi titre un bi laa nekkoon damay dem titre deux automatiquement man en anglais la moo tax mais heading two laay dem yéen titre deux nga cliquer ci titre deux après nga def clic droit même chose nga ñëwaat encore format nga dem paragraphe boo demee bon pas paragraphe da ngay dem format nga dem voilà numéro numbering nga def exemple nga def ko petit a petit b petit c nga bës ok boo gisee gis nga génne na ko fii après nga dem format encore nga dem paragraphe exemple nga avancé ko de 1,5 centimètres su la neexee ok nga bës ok gis nga avancé na de 1,5 centimètres nga changé exemple time numéro man nga def ko peut-être 14 c'est bon après nga daal di bés ok avant ok mën nañ ko def exemple couleur bu noir ok nga gis automatiquement fii nii am nañ petit a plateforme mën nañu supprimer lii ok léegi à partir de fii aussi c'est la même chose gis nga am nañ petit dañuy wàcc ñu xol bee dañuy teg fii après ñu dem bës an deux an xoolal def na ko bee y'a rien à faire dañuy teg fii ñu dem ñu bës encore mu def ko c'est y'a rien à dee même chose nga bës indi mu def ko dee nga wàccaat encore nga wàcc e nga bës nga dem encore def na ko e après nga wàcc bon 3 nga bës 3 bi titre 1 nga defaat titre 1 gis nga mu dem directement 3 nekkul jaru ngay sono sa bopp nga wàcc fii am nañ petit ok fii xoolal bu ma bësee ma dem ma bës dama yóbbu directement F mais garaawul da ngay cliquer ci biir nga def clic droit après nga ñëw ci restart at A maintenant moom mooy bon reprendre à A en français nga bës si gis nga mu def ko directement A nga seetlu boo continuer exemple ñu wàcc B boo defee nii boo fii gis nga da koy def directement B nga continuer boo cliquer fii gis nga da koy def directement C nga continuer ok nga cliquer fii da koy def directement D nga cliquer fii encore da koy def directement E gis nga presque pare naa sama sama sama sama mise en forme nga xool gis nga bu ma yéegaatee ba si kaw grand un grand deux ça continue petit a petit b petit c voilà ça continue léegi nag fii nag leen affaire bi di gën a yombee parce que après xool leen lu may def xool leen damay cliquer fii quelque part en haut ma ñëw bës référence su ma bësee damay ñëw si table contenance bu njëkk bi rek laay bës c'est fini xool leen ba ma yéegee si kaw xew directement am naa sama grand un mooy définition sama grand 2 mooy structure du chaussée après petit a am naa ko petit b petit c comme nu ma ko bindee woon def naa sama table en moins de quelques minutes gis nga lépp c'est arrangé te fii lu fi gën a neex mooy lan exemple supposons kii moom moo ngi euh, boo xoolee fii moom mooy page une la nekk voilà mooy kii léegi exemple supposons mooy yóbbu ko page deux xam nga fii mooy deux léegi supposons ma ni la structure d'une chaussée ma changer ma supprimer d'une chose mooy la structure léegi xool leen instant yi xam nga ñëw na page deux ba pare la structure la ndax boo xoolee fii anam voilà la structure d'une chose c'est la page un léegi il suffit ma bës si kaw fii nii ma def mise à jour ma bës ok nga xool la structure kase yóbbu na ko page directement loo changé da koy changé directement te léegi il suffit mu bës contrôle si lu ma cliqué benn gis nga mu dem yóbbu ma foofu directement ma liir ko pour wax leen ni lu yomba yomba yomba yomba yomba defar la loo xam ni la ça nécessite même pas yenn yenn yenn yenn sacrifice yi pour def ko déjà am naa sama benn gis nga sommaire rapidement am naa ko am naa numéro de page nga xam ne bu ma ko changé woon tamit suba day changé automatiquement du jar may yéegaat ci kaw di bind di supprimer jaru ko parce que tout est automatisé avec Word xam naa dinañ ñëwaat ci cours yu nga xam ne dañuy gën a gën a leeral mbir mi leeral tamit euh, numérotation yi mise en page yooyu yëpp ba nga xam ne nit ku nga nit ku nekk di nga mën defal ko sa bopp te doo benn benn benn coono képp tamit ku nga xam ne dafa am ay question wala am lu la jaaxal muy doon si logiciel bi wala yeneen logiciel wala yeneen mbir ñoo lay ñaan nga bind ñu boo ñu bindee après ñun dinañ ci def suñu kéemtalaay kantam incha allah ñu leen ñaan tamit képp ku lire vidéo bi mu mu mu abonné wu ngir mën a jot suñu yeneen vidéo xam naa ba fañ incha